الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ne moom lañ bind s'abonner ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy chaîne bi nga xam ne moo leen di jàngal seen diine jëleen yeey ci mbirum àdduna الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي العظيم الحمد لله غنا بني سنت يالا جولي سانغو سانغي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ñaanal saxaabaam yu tedd yu baax yooyu la nga xam ne ñoom fu diine egg tey seen loxoo nga ca tabaarakallaahu ñaan dotti xéewal ak barke di sax ba ilaa yawmina haada mbokk yi ginnaaw bi ñu taqdime taxiyaat yooyu ak tazkiyaat yooyu la macha allah di wax ne ñëw nañ ci émission bi ñu tuddee anbiya ngeen di ànd ak seen mbokk daara Aliou Kandji muy am fii ci Ali Imran TV chaque alxamis fa tabaarakallaahu ñuy waxtaanee jaari jaari sang yu baax yooyu le nga xam ne ay tànneef la ñu ci tànneef yàlla yàlla tànn leen pour yónni leen ci xeet yi nga xamante ni ñoo ne ci kaw suuf yenoon yonentu bu ci nekk nag bala laa yàlla yónni bu ñu demee ba xeet wa mu wàcc fa ñu jaaroon yàlla yebal ndaw mu nekk mujaddid mu nekk anbiya wala mu nekk nabi ñëw jaar jaaraat leen fa yàlla digaloon ne nañ fa jaar mu fàttali leen ba kenn ku ci nekk tegaat sa tànk fa nga ko waroon a teg tabaarakallaa ñu tàmbale woon ci nga xam la yàlla njëkk a bind mujj koo yón ana wa aaxirum fil baas sang bu mag bi Seydina Muhammad nee na bu yàlla di bind man la njëkk bind waaye ba mu yónni man la mujj yónni loolu it wax na ko jaxfar benn jour mu ne ko jaxfar ndax xam nga lu yàlla njëkk bind jaxfar na ko yonent bi ak borom bi subhanahu wa taala rek ñoo ko xam mu ne ko nuuru nabiyika am na ñu koy nasab sax ne noora nabiyika ba tey mën naa nekk de boobaa xalaqallaahu ngay nattale noora nabiyika su fekkee nag dañ koy def mubtada yi nga ne nuuru nabiyika ba ne ne Jaxfar xam nga li yàlla njëkk bind mu ne ko lan la mu ne ko leeru sab yonante sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yàlla njëkk a bind yonantu boobu nag ñu nekkoon ci ay maamam waxoon nañu départ ca Ismaila jéggi woon ko dem ci maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam jaaroon ca li tax ñu jaar ci maam Ibrahima ak Ismaila mooy dañu bëgg nga xam makkatal makarama luy cosaanam foog naa ne su ngeen toppee anbiya yi weesu waxoon naa leen màkk ku fa njëkk ñëw kan la kacco topp kan la ko sas bu màkk nekk màkk wax naa la Kaaba nañ ko fa indee wax naa la ña ko bëggoon a dajji lañ ca def lépp wax naa la ko maa ngi tolloon ak yow su ma juumul su ma fàttewul maa ngi tolloon ak yow ci ndoxu sam-sam moomule nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci seede bu rëy ne sam-sam lima duriba sam-sam lépp loo ko naanal looloo yàlla dana ko faj ci yow dana ko dindi ci yow wala boog looloo yàlla dana def ngir li naan sam-sam sam moomu nag dafa am lu ci xewoon ku ñu wax amru wala amru sakkoon na ko diir bu yàgg amruhum la lan moo taxoon ñu takk ko téere yi nee nañ li tax mu saañ bën bën ba sakk ko la ko waral mooy ak kañaan moo ko waral kañaan nga la ko jur mooy ak ndëng gum ne woon di ko def ci penc mi di ko def ci biir màkkam kanam bu waa dëkk ba réunion génne ko dëkk ba ba koy génne nag la daal du ma dem mbaxee leen loxoy kese man daal ma dem noonu rek bàyyi leen ci jàmm du ma ko sax waxee naa ko ca dar si lay weesu waxoon na ay baytu yu bari yoo xamante ni moom amro saddoon na ko di ko jàmbat génne gi ñu ko génnee makkatul mukarrama ak miin gi mu miin màkk ñu xëy benn jour rek ndeysaan xeex ko génne ko waaye la ko waral mooma parce que moom moo nekkoon def ak caay-caay ca dëkk ba ba nit ñi caay-caay gi xatal leen ñen nañ ko génn moom ñu koy def moom it ne ba muy génn woon ak caay-caay moom it ne comme maa ngi dem <laughs> ma yàq li nga yor danay am léeg-léeg nit da nga ko dénk dara ndeysaan ba war koo jël war koo joxe te ba nga koy dénk da nga koo sangoon raxas ko ba mu set wecc nga jox ko defar ko ba mu baax nga teg ko ci loxoom war koo jëlaat mu ko yàq bala la koo jox loolu nag lu doy waar la amru ne bala maa dem dinaa yàq biiru sam doo ko dem du ma leen ko baaxee noonu ngeen di ci gundaanaat moo tax sëñ bi di wax ne wa biiru sam-sam amrun tammaha xasadan id axrajuu li jawrin kaana fi lxarami nee na ndox mu ñu biiru sam-sam amar da ko sakkoon ngir añaan ba loolu amee nag yàlla dogal mu sakk sakko ngir añaan ndax lan nëng goo xam doon na ko def ci dëkk ba ñu commencé ko bëgg a génne ñu war ko dàq mu jóge fa waaye wa fii yajcalu axlaaqan axlaaqan wala yudannu biha wa qaama yunshiu yashku shiddat al alami wa yaj'alu fiihi def na ca alal yu cher yoo xamante ni lu am solo la ndax la ko waral mooy defoon na fa xasaalay ni defoon na fa lu mel ni ñaari kéwal mbubu koŋ ak i jaasi ak yeneen yoo xamante ni moom moomu ko buur bu ñuy wax saazaan wala saabuun moo ko haddiyeeloon kaaba ga gaa yi defoon ko fa mu dem daj ji lépp roof ko ci biiru sam-sam sakk ko ba mu ne tamas mosuwul ko Abdul Muttalib nag yàlla dogal ñu war a génnaat weeru samsam yàlla géntulu Abdul Muttalib ne na génnewaat weeru samsam maam Seydi Haaji Maali wax na ko la ko jiitu mooy waa dëkk ba ñoo yëg ne ndox manqué na ci dëkk bi wala ñu dem ba yëg ne ñun war nañoo wutaat luñ mën a def ndox ñi décider ñoom ñëpp ñuy décision jël décision dañuy dagg defaat euh, ay teen ci dëkk bi maam Seydi Haaji Maali wax na ko xammu ila afriha baarin wa maxtasaru li an raa ma raha kallihim du kullihim da amaalu kallihim la bi firi coono la mu ne ñoom day dañoo décider dañoo jóg takkatoo waaj ne nañu gas ay teen ci dëkk bi loolu ca lañ nekk ca lañ nekk ca lañ nekk ba yàlla woon Abdul Mutalib ne ko li ngeen sakk yëpp li ngeen sekkat yëpp li ngeen woon yëpp des na benn bu ma amal solo ci géntu la ko woon waaw ah, loolu de léeg-léeg ndeysaan taalibe daar yi ne waa déet yàlla moom Abdul Mutalib ku gëmul yàlla ku nangamu nu yàlla wax ak moom mais dañu fàtte wa awxaa ilaa <laughs> loolu am na ci alxuraan yàlla wax yu nag yemb yi sax yàlla mu leen di wax yu umu Moussa ngi noonu ak yeneen ak yeneen yéen yoo xam ci boo toppee ci sunna da nga gis foo xam yàlla dañuy wax moo wax yu diw nangam yooyu day bëri na fi léeg-léeg nag taalibe yi ndeysaan léeg-léeg ñoo toll jamono joo xamante ni weddi gi bari na lool dañuy faral di wax nag njàng su néew de sonal bopp borom ndax dafay tax nga bëri looy weddi ñàkk dox wala ñàkk ñàkk xam li xew dafay waral léeg-léeg nga bëri wéet ndax lépp loo dégg nattale ko ci sam xel su correspondant su jubul rek di nga loolu amul mais am na ci loo xam war wara a tawril aqli la dafa nekk ca gannaaw xel rubama nit ki bala koo mën a yegg te kay nattalee nattee waayu xel mën naa jafe de dund gi fi lislaam jële ña ko doon jën yu bëri ci xel lañ ko tegoon waaye lislaam ba lu mu ci dindi ne leen dëgg-dëgg loolu xel rafet doo ko sax mu baax mu ne am wa ila afri abaarin wa maxtasu li an raa ma raxa amalu kallihim ruya fi taybatin madmunatin wa sumasimin wa barratan min ajabati alxakam yooyu yëpp ay tuuri sam-sam la yi jaaroon naa ci dama koy fàttali rek pour ñu demaat ci anbiya ba loo amee nag abdul mutalib yàlla yàlla wax yi ko ne ko soo xëyee demal yoor yoor ci pénc ma taxaw da nga gis ay gaa yu jiital ak gilem bu ñu ñëwee ñëw fa gileem nga lanke buñ ko rendee fañ ko rendee dara ja tuuru dañ ko fees ñu ko feesee fa ñu tuur sébris sa diggante dara ja ak sébris sa danga nga gis benn euh, benn benn lu ñu koy waxeeti benn baaxoñ bu naaw bu ñëw egg si fa muy samp beeg ba ca kër xorondoom ma foofa ngay gas allahu akbar ay waay lii leer na de fekk géwantu na mu di ko wan mooy madd moona mu ne ko man madd moona du ko xam mu ne ko ga tayba mu ne tayba du ko xam zumaasim du ko xam barra du ko xam yooyu yëpp ay place yu mu koy tudd Abdou Moutalib xam ko bu géwoon fàtte ko waaye kere ba ko yàlla na ko soo yeewee ca yor yor ko demal ba ci penc ma soo demee toogal taxawal danga gis maanaam soo demee taxawal ci penc ma da nga gis gaa yu ommat ay gileem ray ko fañ ko rendi der ji ak sibris sa da gis benn baaxoñ ko xam tànk yi sax da koo jib dafa weex ah akbar lii leer na de tt baaxoñ gi dana ñëw di cob fa mu cob daj fa bégam ba ak xorondoom a benn melentaan la foofa boo fa gasee fa la sam-sam di génn mu dem gas ko yàlla loolu fa gasee nag mam si daa ji maali ne nag coow lu bëri moo ci tudd ndax raal xada ba abdul mutalib demee gas euh, fañ ko nettali ne biiru sam-sam fa la nekk da koo gas fekk omar abdul aziz dafa du omar euh, omar dafa dugaloon ci biiru sam-sam ñaari forme kéwal maanaam wurus wala or yu ñu defare woon ci formu kéwal tegoon ko ca kaaba ga ak lan mbubb koŋ ak yenn ci wurus ak jaasi fab Omar faboon sakkee ko ndox mu ñu tuddee zamzam loolu nag fa mu jógee woon mooy buur bu ñuy wax saasaan wala nga ne saabuun moom moo ko xadiyee doon kaaba néegu yàlla ba ba nga ko gasee nag génne ko waa dëkk ba ne ko ah defoon ndànk nag xëccoo nañu ndox nga gañe ñu ndax dañoo xëccoo ndox ko moom ñeen nañ dem atte ji bañ demee di ji aw mar dab leen fa Abdul Mutalib yësaloon gilee moom ba bañ jógee amuñ luñ naan amuñu def fa la ndox ballee gaañoon eh nañ seetal suñu bopp ñun ñu ngi bëgg a dee ak aw mar amuñ fu ñu naan Abdul Mutalib fii giléewam ngi yësoon ndox mu dul jeex génn fi ñu sangu ci naan ci ay eh, nañ dellu Abdul Mutalib ki la jox ndox mi fii moo la jox ndox mi fële kon na ñibbi atte boo gën a gaaw waaye bu ñibbisee alal ji génn nag xam nga doomu aadama dafa bëgg alal ci la gaa ñi alal ji génn nag ñun duñ bàyyi alal ji Abdul Mutalib di ko génn ñeneen nu ñuy def Abdul Mutalib ne ji oo bi aqdaahin ka xaaratina comme d'accord leen ne ñaari mbubbi koŋ yi mbubbi koŋ yi moom ko jaas ji moom ma ko or bi ak wurus bi moom ma ko xam nga lu ñuy def indi leen bant ndeysaan boo ma toppee ci dar si bii di ñëw dinaa la waxal Abdul Mutalib ba mu xëccoo ak gaay mbubbi kon ko alal ja te buur la bu maandoon nag ndax suñu penc mi léeg da ngay gis kilifa goo xam ne léeg-léeg bu génnee dafay fas yéene ëppale ca ëppale ci aw ñoñam da gis sax léeg-léeg ci da nga gis koo xam bu ñuy séddale alal day bëgg cër ba gën a lëw kër moom mu jël ko te wax ne léeg-léeg su xel nekkee ci yow bu ñëpp dajee ñi tànn ne la séddaleel waroon naa doy sa këp am ba doo am yow waaye léeg-léeg da nga gis koo xam bu ñu la ko day jël def ci poosam ba pare doo jox gaañi léeg-léeg ne ci jàkka ji ñuy maye <laughs> ndeysaan métti la ci xisa bu doy waar mën ne ci jàkka ji imam ba ne nañ génne jàkka ji dem ci mbaar male fa la ñu ah, ma ne ko déet imam ñaari junni jàkka ji amatul moom xanaa ñaari junni mbaar mi waaye jàkka ji amul ñaari junni amatul ñu ma di waay mën na jàkka ji am doon maye imam ne nañ génne jàkka dem ci mbaar mi fa maye kon kay ñaari junni mbaar waaye ñaari junni jàkka ji weesu kay séddale dina xorom xam naa Cissé la sant bi ñu war a sédd alal ji mu jël ñaar def ci poosam doo ko jox gars yi loolu duñ ko def Abdou Moutalib ba ngi nii ba alal ji génnee daf leen dem ko te pourtant moo xas moo geer moo gas moom la yàlla won ba mu génne ko waaye dafa kilifa goo xam dafa del alal ji yëpp ci nit ñi kon bu ñu dajee ñeen la séddaleel jox gi ñu la jox ni séddaleel rek war naa doy sab cër incha allah moom toppee ci jar si biir ñëw dinaa la nettali Abdou Moutalib fu mu jaar a gars yi ci xëcco alal joojule kan moo gañ alal ja nu mu fu mujjee continuer moom ba àgg ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu in uridu ila al islaha masratu wa ma tawfiq ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلا yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ne moom lañ bind s'abonné ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy chaîne bi nga xam ne moo leen di jàngal seen diine jëleen yee ci mbirum àdduna alhamdulillahi alladi agnaani wa a'azzani bi tilaawati alqur'aani thumma as-salaatu ala an-nabiyyi al-mustafa xayri al-baraaya min bani adnaani